salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp ñu ngi leen di béggee yéen ñëpp ñi nga xamante ni abone ngeen waaye yow mii di ñu seetaan te abonné goo ñu ngi lay ñaan nga abonné nga laal cloche de notification bi nga xam ne bépp notification bu ñëw rek nga jot ci ci waxtu wi mu ñëwee ñu ñëw ak yéen ci rofi de presse bi tey li tey jii le 6 juillet 2021 ñu dooree ko fii ci Sénégal bay ci sa wewu tànk record yéene kay bu groupe Futur Média la ñuy jël l'Espagne défile in Italie en feu loolee la wax Espagne tey ma ngay jàkkaarloog Italie goo xam ne day lakke tàng jër la ñu def gone yi Mancini yooyee ña ngay wane seen bopp waaye Espagne nag coow la bari woon na fa lool Espagne dina dem. am du dem ma ngay soox nag ba demi-finale tey jii waaye demi-finale bi revanche la ndax 2012 Espagne moo dooroon itali ñeenti bal ci dara loolee tey jii gone yi dañ koy footballaale kon revanche bu mag a mag la waaye fële ca Copa América ca Brésil lay amee Brésil bu Neymar moomee fa la ñuy wax sax ñoom qualifié nañu démb benn bal la ñu dóor Pérou ci dara ka dugal bii ba mooy Lucas Paqueta di jongante fële ca championnat bu France ba ca Lyon waaye tey jii bu minuit bu une jotee maanaam benn waxtu bu ñu reeree daal ba toog ba ca kanam kii di Argentine bu Lionel Messi la Pulga mooy jàkkaarloo ak Colombie bu Cuadrado Cuadrado ma nga ca Juve Messi ma nga ca Barcelone mais ci fàttali Messi temps yi nag lii libre la doonatul joueur Barça ndax benn contrat lié wu ko ak Barcelone mën na am nag bu demee ñëw dina yokkaat contrat moom mii di Lionel Messi. jógee record yéene kaay jël estade yéene kaay nee na tey jii match bi ci diggante kan Espagne ak Italie caabi yi nga xamante ni ñoo nara a tijji match bi moom lañ leen fas yéene wax léegi muy lan doole ji nga xam ne moom la Italie yor waaye nag ñii waa Espagne seen xel lañ wóolu ak seen confiance daal am nañ ko ñoom waa Espagne waaye tamit tey jii xeex ba ci digg milieu terrain ba la foofee nag ku ko gañe rek yaa moom match bi waaye kii di Spinazzola moom dafa gaañu du bokk ca match boobee jaaxal na nag waa Italie bu baax for nañu sax ci wewu bay ne kii di Emerson nekk ca Chelsea moo ko nar a wuutu ca latéral ba waaye tamit kii di Morata ma ngay jàkkaarlook ñaari xaritam waaye tey ay noonam la ñuy doon muy kan kii di ci ak Chiellini ndax ñoo bokk nekk ca Juve kon jongante boobee tey dina neex lool ci équipe nationale bu Sénégal comme ñoo ngi Sénégal kii di Paulo Duarte moom mooy su kii di Togo ma ngay artu Sénégal nag naan koy hee yéen ñoo bokk poule de te xam ngeen ma bu baax su ma waxee loolu war ngeen a xam li tax ma wax ko waajal leen seen bopp bu baax man pare naa Paulo Duarte moom mooy su kan kii di Togo xam nga Sénégal ak Togo ñoo bokk poule ci qualification mondiale 2022 di amee fële ca Qatar. jugee Sénégal wutali France wàcc Paris fekk fa l'équipe un monument à Paris loolee la wax kii di Sergio mos ña ngi koy séentu ca Paris loolee daanaka lépp yemb na gën gaa sori fileeg àllarba moom mii dina doon jouru Paris Saint-Germain bu waxee monument nag am na fu mu ko teg ndax kii di Sergio Ramos ñeenti Ligue des Champions jël na ko ak Real de Madrid jël coupe du monde ak Espagne ak coupe d'Europe ak Espagne kon monument la waaye nag ñii di waa Paris ña ngay wéy di defere bu baax ginnaaw bu ñu jëlee Wijnaldum fayu ñu ca dërëm ñu jëlaat kii di Gigio Donnarumma fayu ñu ca dërëm waaj am kii di Sergio Ramos kon nag Paris ma ngay defaru bu baax ñu waxaat leen nag beneen information boo xam ne léegi la ñëw te newul ci l'équipe muy lan Asraf akimi jamono jii ñuy wax ak yéen ma nga ca Paris def na visite médical ba pare kon Asraf rek la Paris jëndagum 70 millions d'euros la ko jëndee moom nag Inter la doon football daaw dafa jóge woon mun daaw dem Inter benn at képp la jël def Inter jël na fa Serie A kon kii di Asraf Hakimi ma nga ca Paris fa lay jongante déwén jóge France dem Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport on verra si ça passe loolee la wax ñu ngay xool ñun doomu Italie yi ba xam yéen futbalkatu itali yi di ngeen génn tey dem ca final ba wala déet loolee nag du yomb Espagne ngeen am waaye tamit itali gépp ña ngay wax ci Ciro Immobile ndax gëj na dugal ci euro bi coow la bari na lool waaye coach ba di Mancini nee na tey laa gën a am yaakaar ci moom tey laa ko gën a wóolu dama koy départ te ni mu toogee nii dugalul bis bu yeewoo rek dina dugal ba ngeen kontaan ge Rome wàcc Torino fekk fa Tuttosport Tuttosport ña ngay ma ngay wax ci match tey bi rek Karamba Italie loole la wax ñoom ñu waa Italie tey jii dañuy football demi-finale jongante boobu 19h la waaye seen xol neexul ñoom waa Italie ndax dañoo ñàkk supporter bu mag a mag a mag Raffaella Cara dafa gaañu moom kat supporteru itali la woon ak Juve démb la ñàkk bakkanam kon nag naqar boobee dañ koy footballaale ñoom waa Italie jógee Torino wàcc Milan fekk fa Gazzetta dello Sport Forza Azzurri Azzurri nag mooy bleu les bleus allez les bleus tey jii dañuy jongante ñoom waa itali waaye ñoo ngi leen di xaar bu baax waaye nag dëkk ba yëpp ñi ngi naan ah tey il faut ñu football de bu baax nañ ñu xamee woon am Diop indi Ndiaye waaye nag kii di coach suba di si ni na ah am Diop indi Ndiaye gi de mën nañu ko de waaye ñu ñuy tasee li dañ koo mën kon il faut ñu soppi doxin indiwaat yeneen système ngir mën a am ndam sunu diggante ak ñii di waa Espagne waaye Italie gépp daal ñu ngi bootu doon benn ànd ak seen doom yi ñu jàkkaarloo tey jii ak itali ak Espagne tey jii ci ngoon la 19h. ñu jógee Milan waaye ñoo ngi itali ba léegi dañuy jël Quotidiano Sportivo Soirée Magique Bamo Azzurri loolee la wax Bamo nag moom español la moom. waaw tey nag ñooy jàkkaarloo Italie Espagne loolee ma ngay am 19h waaye ca njënd ma njaay ma kii di José Mourinho dugg na ci dossier kii di Emerson nekk ci Chelsea xam nga ñii di waa Inter dañ koo bëgg ngir mu remplacer kii di Asraf Hakimi waaye Mourinho dugg na ca xeex ba ta nee na amul dellu ginnaaw gone gi dama koo bëgg te dama bëgg a ñëw fii dama bëgg a jënd ko mu ñëw fii ci AS Roma waaye kii di Galliani moom sénateur la ma nga dëkk fële ca Monza Monza fa la Balotelli doon football moom mu nga woon ca Chéribé ba waaye nag mon kii nii di Galliani moom dafa bëgg dëkkam ba mu dëkk am ku leen représenté ca Serie A ba nee na équipe bi déwén damaa bëgg mu yéeg. Italie dem Espagne wàcc ca capitale ba di Madrid fekk fa Marca yéenekaay quelle fantastique fête fête bu neex la ñuy xaar tey yii ci ngoon Espagne ma ngay jàkkaarloo ak kii di Italie di wuti nag dem ca final ba waaye nag du yomb ndax wujju wu mag a mag la moom mii di Italie waaye ñii di waa Real de Madrid kii di Ancelotti ginnaaw bi mu fa ñëwee dellu si waat fa commencé waat na liggéey ba joueurs yi ñëw nañu def nañu visite médical ba commencé nañu entraînement ya jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Forza à l'Espagne loolee la wax Espagne dooleem nag tey jii lay am waaye nag ma ngay wuti juróomeelu kubam coupe d'Europe mooy euro bii ñu nekk jël na ko ñeenti yoon juróomeel bi nag lay wër waaye du yomb de ndax ka ñu am muy Italie loolee nag pour mu am il faut ñu jaar ci kaw itaali duma ko xaar ba xam kan la ñuy am ci final ba waaye kii di Dani Olmo moom mi kat tey day départ ndax day remplacer kii di Pablo Sarabia dafa am ay gaañu gaañu du bokk ca jongante ba waaye kii di Luis Enrique neena daal moom yaakaar na bu baax am ndam ca jongante ba ndax gone yi daal gis na nañuy doxalee te ña ngi ci forme bu baax a baax waaye kii di Ancelotti commencé na liggéey ba ca Real de Madrid démb am na nag fukki gone yoo xamante ni ca équipe A ba la ñu nekk ak fukk ñaar yoo xamante ni ci équipe B ba la ñu nekk muy Castilla ñu ñëw nag mottali yëf ya pour liggéey jëmale saison 2021 2022 ca capitalu Espagne ba di Madrid dem ca Catalogne fekk fa Mundo Deportivo finalissima loolee la wax tey jii de final la seen diggante ak kan kii di Italie ñoom waa Espagne ña ngi koy waajal bu baax waaye match bi mooy classico wu euro bi loolee la journal bi wax ña ngi xaar bu baax a baax kii di Lucho di Luis Enrique ngir mu mën a def ay coppite ca équipe ba waaye Luis Enrique nee na am naa yaakaar lool ci gone yi ndax daal ña ngay wane seen bopp bu baax ci entraînement yi direction la final loolee ki ko wax mooy Esport La Roja ñoom ñii kat tey jii dañuy jàkkaarloo ak kii di Italie waaye nag final la revanche la teg ndaxkat ndax kat 2012 kii di Espagne moo ko dóoroon waaye kii di Espagne mosul dem ci demi-finale muy lan euro mu ñàkk ko kon Espagne ña ngay yaakaar lool waaye Luis Enrique ba léegi ma ngay wax ci Sarabia tey nekku fa kon nag yaakaar nañu bu baax kan kii di. Euh, Dani Olmo remplacé ko waaye Barcelone ubbi nañ yëf yi nag ngir càmbar ko muy kan kii di Griezmann xam nga français bi moom kat dafa nekk ci jafe-jafe ca Barcelone boo moytuwul dinañu ko jaay loolee la Barcelone wax ubbi nañu nag waxtaan wa ngir lan kii di Antoine Griezmann mën a am toogaay bu baax ca Barcelone wala mu jéem a wut buntu rek dem feneen kon nag yëf yi foofu la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba subaak jàmm incha allah.